asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu dikkaat ak yéen ci seen émission spéciale tabaski tabaski ak oustaz Ibrahima Sow bi leen nar a waxtaanal mbirum tabaski ana lan moo waral tabaski ana ki tabaski war si moom ak ki mu warul ci moom oustaz Ibrahima Sow oustaz journaliste chroniqueur moo leen fas yéene waxtaanal spécial tabaski fii ci 7media TV mbokk yi bu leen ko tardé mukk ajuma lay doon bu ñetti waxtu jotee fii ci 7media TV gannaaw jili juma ak oustaz Ibrahima Sow leen ko warahmatullahi taala تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدغة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المتحدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن فطر القلائق بقدرته ونصر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أيها المستمعون الكرام نهدي إليكم أطيب الطهي وأزكاها وأجملها وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi yéen ñi safoo di déglu di seetaan seen groupe 7 médias ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare ngeen ànd ak seen mbokk seen xarit Ibrahima Laye bu ko defee ñu ngi leen di ziyaare baax di leen nuyu nuyu ak lislaam di jàmm ak xéewal yërmande ak barke bu tukkee suñu borom yàlla wax ci yéen. di ci jiital suñu xalifa Mouhamad Mokhtar Laye ibnu Sinna Mandione di ko nuyu di ko ziyaare ak njaboot gi yëpp nuyu it di ziyaare mbooleem kilifay diine ak i kilifay aada di leen jox seen waccuwaay seen mbokk seen xarit Ibrahima lay moo ñëwaat fii ci bërëb bi tedd bi di seet médiat war leen waxtaanal leen lu aju ci tabaski Euh, tabaski nag ñu bëgg ci ñëw ci ñaari tomb benn tomb bi mooy lu waral tabaski beneen bi mooy anakan moo war a tabaski waaye danañ ci ñëwaale tuuti ci ban gàtt la ñu war a tabaski incha allah bu ko yàlla maye. bu ko defee tënk la rek ci tabaski yi du ñàkk danañ amaat yeneen incha allah yeneen émission yeneen waxtaan ci yeneen i thèmes ñu gën kaa yaatal bu soobee yàlla. Euh, buñ nee tabaski nag suñu xel dina deñ suñu maam Ibrahima alayhi salaam di yonent waaye it dina dem cay doomam ja di Ismaayil moom it di yonent euh, yonent yàlla Ibrahima sama turandoo ku njabootoon la amoon na soxna suñuy woowe Haajara mu am ci moom di doom ji di Ismaayil amoon na it soxna suñuy woowee saarata mu am ci doom ju ñuy wax isxooq amoon na it doom bu ñuy woowee eh, soxna suñuy woowee xantuura moom moo gënoon njaboot nag moo jur madiyan zamran ak sarq ak yaxsaan ak nasq ñooñu nag ñu amaana isxaaq ak ismail ñoo gën a siiw waaye du tere ñu leeral ne amoon na njaboot yooyu moom suñu maam Ibrahim ci sababam lañu yàlla baaxe lii di tabaski euh, tabaski boobu nag euh, suñu boroom subhaanahu wa di nettali ci histoire sidna Ibrahim alayhi salaam ci alquran wa isibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimaat fa atammahunna qaala inni jaa'iluka linnaasi imaaman qaala ma min zurriyati qaala laa yanaalu ahadi zalimin sadaqallaahu alazim wa is fàttalikul isibtala rabbuhu ibrahima rabbuhu yonte yàlla ibrahim boromam daf ko teg ay nattu mu matal nattu yooyu mel ne eh, ku ko jaare ci examen bu metti jaare ko ci ay nattu ay tolof tolof yu jafe yu metti ba mu réussiree ba jéggi tolof tolof yooyu yàlla nekk dama lay tànn def la njiit ci nit ñi euh, loolu lay wax bi kalimaatin fa atam ma hunna natt yooyu ba mu ko matalee nee na ka inni jaa'iluka linnaasi imaama dama lay jox garaat bi gën a rëy ci garaat yi mooy njiitu nit ñi kon baatuk imaam baat bu am solo la baat buy jiite buy tekki président de la république la waaye baat buy tekki njiit la ci jàkka waaye baat buy tekki la njiit bu rëy ci wàllu diine euh, mu ne dina la def njiit ci nit ñi nga jiite leen ci seen wàllug àdduna waaye jiitu leen jiite leen it ci seen wàllug jaamu yàlla Ibrahima nag am na fulla bu toll ne lépp lu baax lu ko borom bi dikk ne dina ko ko defal day ñaanaale njabootam ndax sama njaboot doo leen boole def leen ay njiit def leen ay yonanta def leen ay royukaay yàlla nekk nag ci condition bu fekkee ne tegu nañ ci yoonu jub nekk nañu ci li nga nekk ci jaamu yàlla nekk nañu ci li nga nekk ci topp yàlla topp ay ndigalam moytu ay terem sa doom de bu ñu melee noonu danañu jot ci li nga jot muy muy yonenta muy nubuwa muy imam imam boobu sax la ñu gën a xamee sidna imam mahdi alayhi salaatu wassalaam kon imam garaat bu rëy la ci suñu borom subhanahu wa taala mu dem ci beneen aaya mu mu wax ne qaala taala wa qaala inni zaahibun ila rabbi sayahdini ibrahima gàddaay na jóge ci cosaanam ci Palestine gàddaay dem ci booru xijaas loolu lay wax ne e, maa ngi jëm ci sama borom dina ma gindi dina ma jubal dina ma orienté dina ma dina ma teg ci siraatul mustaqim qaala rabbi habli e, min as-salihin yow yàlla yow moo jóg jëm ci yow di la wut si di wut nga teg ma ci siraatul mustaqim nga gindi ma nga wan ma mu màkk bi maa ngi lay ñaan nga may ma njaboot njaboot gu barke moo tax ñaan njaboot am na solo lool baax na waaye ba ñaan njaboot ñaanalit njaboot gu barkeel njaboot bu sell njaboot bu yiw mu ne eey yow sama boroom may ma doom may ma ci gaañu baax ñi njaboot yu sell ya boobu Ibrahim mag la kon dem na ba am quatre-vingts ans doog am doom yàlla nee na fa basarnahu bi gulaamin xaliim yàlla nee na bégal nañu Ibrahim ci doom ju sell doom ju yiw doom ju baax doom ju lewet muy Ismaayil fa lamma balaga maahu saaya histoire bu yaatu la waaye dañ koy tënk rekk ba mu amee doom bi di Ismaayil muy jóg ak daanu ba màgg ba mën a sol dàllug waajuram mu jot ko niñ koy waxee ci wolof ba mu nekk euh, muskalaf euh, yonent yàlla Ibrahim waxoon na ne yàlla de soo ma mayee doom euh, dinaa def fida jote jotee la doom jooju ngir gërëm la sant la delloo la doom jooju loolu nag boo ko waxee muy euh, niseur ci lislaam da nga kaa war a motal da nga kaa yeggale kon nag xale bi di dem na ba nekk waxambaane masoor na xaala mu ne yaa bu ne eey yow sama doom ibrahima yi di wax ak ismail mu ne inni ara fil manaami anni asbaxuka man de gént naa ci ay gént ma tëral la di la ren te xam ngeen ne gént ak yonent waxyu la message la bu jóge ci boroomam ñëw ci moom te nazaroon dana def loolu avant waaye saa yu tëddee guddi rek am na luy ñëw ci boppam naan ko yaa digge woon bu la yàlla maye doom bu góor danga ko delloo danga rey ngir jox ko yàlla loolu foo ci toll amatul jàmm amatul salaam saa tëddee rek looloo ngi ñëw ci boppam ne léegi nag ñëw na wax ak doom ji nekk gént naa di la rey loo ci xalaat fanzur maza tara lu ci sa xalaat bàyyi ju nangul yàlla bëgg jëfee nëzëram waaye nëw ci doom ju nangul yàlla laaj ko yow it lu sa xalaat doom ji xoolal wax teggin waxuk yar waxuk déggal suñu boroom waaye waxul nangul waajuram mu ne ko yaa abati ey yow sama baay if'al ma tu'mar defal li la yàlla digal sa tajiduni incha allah min assaabirin dina bokk ci ñiy muñ lii nga xamante ne moom ngay def ngir jaamoo yàlla ngir yeggali sa yéen ci sa boroom ding ma fekk ma bokk ci jaam yàlla yi nga xamante ne ay muñaakoon léegi nag falamma aslama wattalahu lil bi waxtaan nag doomam doomam nangul na ko moom nangul na yàlla waaye doomam ji nangul na yàlla nangul waaye juram bu góor mu dem ci soxnaam laaj ko it soxnaam si eh, muy haajara nangul suñu boroom subhaanahu wa taala comme ñépp nangul nañu yàlla iblis ñëw na fa Euh, di jéem a décourager xale ba bañal lii la sa bor euh, lii la sa waajur nar a def tëral la rendi lankal mu ñëw ci soxna sa di Haajara wax loolu ñuy jël ay xeer di xaañ iblis di xaañ seytaane ngir mu sori leen euh, ndax mu ngi leen di jéem a détourné ci ndigalu suñu borom looloo waral suñu xujaaj yi bu ñu demee ca Makka di jël xeer yooyu di sànni ngir roy na xaajara waaye ngir roy ismail nañu doon dàq seytaane tey noonu ba tey la jële xeer yooyu muy xeerub jamra yooyu di ko xaañ seytaan nee na nag wanaada wanadaynaahu an ya ibrahim yàlla nee na fa mu tërale doomam ndeysaan dëpp kanam ga ngir yërmande bañ a dox ci ñaari maanaam seen bët yi bu ñu tegoowee yërmande dox fa ba amaana du sottal ndigalu borom dëpp na xale ba jël na paaka ba eh, nàmm na ko ba mu ñëw tëral doomam ba mu xàccee bay reen doomam ci la dégg baatug suñu borom subhaanahu wa taala eh, yàlla yebal jibril alayhi salaam mu indi kuy bu rëy loolu la wax ne wa naadaynaahu an yaa ibrahim e yow ibrahim nattu bii la sa boroom tegoon di xool sa ngëm fan la toll xat sa daxta ruya yow koy dëgg-dëgg amoo moroom ci déggal sa boroom ci nangu topp ay ndigalam dëggal nga gént ba inna kazalika najzil muxsinin yàlla nee na nii lañuy ñuy xamee jaam yàlla yi nga xamante ne dëggu nañu walla dëgguñu waata jullit ci la muy nekk ci topp boroomam daf ci war a dëggu dafa war a am dëgërlaay ba lenn du ko tutul yàlla ne inna kazalika najzi al muxsinin nii la ñuy nattoo jaam yàlla yu sell yu baax yi rafetal inna haza la huwa al balaa'ul mubin lii daal natt fii la yem nattu bu rëy tëralal sa doom nga rendi ka ci koo xamante ne mag la te moon na ba ñàkk yaakaar ci am doom yàlla may ko benn doom bu góor mu nekk ka rey ka mu nangul boroomam tëral doom ji rey loolu la euh, ci misaal mel ne Jibril dafa ñëw tàcc ko nekk réussir jàll nga ci sa natt woowu jàll nga ci examen boobu in haza la huwa al balaa'u al nee na wa fadaynaahu bi zibhin azib ismaayil mi jotoon nañ ko kuy bi kuy bu duuf mu remplacé rey bi ñu waroon a rey ismaayil jëlal xar wi nga rendi ko loolu kon ci tënk mooy sababu tabaski nee na wa tarak naa alay fil aaxiri ñu bàyyi lool nag muy royukaay muy sunna suñuy roy ci maam ibrahim alayhi salaam tabaski bu jot fu jullit ñi mën a nekk danañ dem ci daral yi wut seeni gàtt tëral rendi ngir roy royukaay boobu di seydina ibrahim alayhi salaam mu ne salaamun ala ibrahim jàmm yàlla na wàcc ibrahim kazalika najzil muxsinin ñun yàlla nii la ñuy nattoo ñii rafetal innahu moom daal dëgg-dëgg min ibadina al bokk na ci jaamu yàlla yi nga xamante ne seen ngëm dëgër na ay dëggi dëggi jullit lañu euh, nangu nañu lépp lu leen seen borom teg ak lu mu métti métti nee na wa basarnaahu bi isxaaqa nabiyan yàlla yemul ak moom foofu ginnaaw si loolu mayaat naka beneen doom bu ñu woowe isxaax mu bokk ci yonente ya bokk ci gaay wi yàlla ya moo tax min wa barak naa alayhi yàlla barkeelal ka njabootam وعلى إسخاق أقدامهم بيد إسخاق يلا بركل جبرتم ما يارك أي سد ميوا بني إسرائيل تا فلسطين تسا نكوين انت يو يب نيغا سوقاي كو تي إسخاق إسخاق موجور يعقوب يعقوب موجور ست يو يو ديوا بني إسرائيل loolu lay wax ne barkeel nañu isxaaq nañu barkeele barkeelee ismail te ismail mi ñoo naroon a rey tayaayu ñu ko ci la Muhammad gene àdduna ci côté boobu la côté bële nag yaqub ak i doomam ya ak sët ya fa la ñu bawoo loo tax mu ne wa min zurriyatihima ak seeni njaboot yi yàlla barkeel na leen muxsinun wa zalimun waaye nag barkeel ba jamono danay wéy ba ci ay sëtuk yonenta am na ci ñu jub waaye am na ci ñu jaar ci yoon bu jubadi lool tax mu ne muxsinun wa zalimun li nafsihi te ñaar ñooñu rekk ñoo am ci kaw suuf ku sellal jub rafetal waaye ak ku dëng koo xamante ne topp na caaxaan topp na doyadi kon nag lii am solo mooy nga juddoo fu baax nga roy ñu baax ñooñu nga tegu fa ñu tegu woon teg sa tànk fa ñu tegoon seen tànk ku baax jur la te baaxoo du la jariñ waaye ku baax bu la juree li nga war a def mooy nga roy ci mbaax boobu même boo dul waaye it nga mën a am ci barke ba mën a am ci njub ba mën a am it ci tegu ci siraatal mustaqim kon nag loolu ci tënk mooy li nga xamante ne mooy istuwaaru tabaski léegi nag euh, ñu ñëw ci attey tabaski tabaski ci euh, sunna yu war ci lislaam ci la bokk ci màndargay lislaam ci képp ku ko mën képp ku mën a tabaski muy góor muy jigéen wax nañ ni sax xale bu fekkee ni am na alal war naa tabaski tabaski nag kan mooy ki man tabaski mooy ki am njëgu xar te njëg loolu ci at bi yëpp maanaam amaana njëg li doog a soxlawaat ci beneen urgent loolu mooy ki nga xamante ne tabaski war nag bi maanaa boo amee njëgu xar mu wóor ne boo jëndee xar ñaari fan ñetti fan nga war ci dëkk bi di àbbu depaas kon tabaski dootul war ci yow wala say soxla say ordonnance ak yeneen ak yeneen sag njaboot dana la jaaxal ci at bi yépp kon njëgu xar boobu wàcc na la benn xar doy na kenn ku nekk waaye it sa njaboot xar bi nga rend képp koo xamante ne yaa koy dundal ci sa xar boobu yóbbaale na ko kon loolu it lu jara xam la lu jar xel lan mooy doy ci tabaski tabaski wax nañu la ciy doy ci gàtt mooy bu foq wax nañ ne mën naa doon xar wala béy wala nag wala géléem bu dee xar la eh, lu mu tuuti tuuti na xar bi am juróom benni weer su amee juróom benni weer rekk doy na tabaski mën na ëpp nag mën naa dem ba am at waaye daal lu mu tuuti tuuti lu mu néew néew na am 6 mois nga mën kaa tabaskee daanaka moog béy ñoo xaw a jege foofu kon nag ni ñuy toppee ci wàll ci chronologie xar moo jiitu béy topp ci nag topp ci gëléem topp ci waaye ku dem aji gàtt yooyu ñu fay rey gëléem moo jiitu nag topp ci xar topp ci béy mujj waaye xar bu góor it mooy jiitu tàpp ba ñëw euh, xar bu jigéen ba ñëw nga jàll ci béy béy timit béy bu góor béy yu tàpp béy bu jigéen nga jàll ci nag noonu it lay toppante ci nag noonu it lay toppante ci gëléem kon yooyu lañu ñu war a tabaskeel léegi nag ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy xar bu ñu war te tabaskee lan moo dul doy ci gàtt ngir tabaski doyul ci gàtt ci tabaski gàtt bu pat maanaam benn bët bi du gis boobu kenn du ko tabaskee wala xar wu feebar xar woowu kenn du ko tabaskee wala xar wu làggee maanaam tànk bi eh, baaxul dox bi dafay feeñ ne xar wi la xar wu la boobu it ko tabaskee waaye bu dee soox bu ndaw rek loolu mënees na ko tabaskee xar bu lompoñ bu yooy boo xamante ne amul benn gerees boobu it kenn du ko warees na moytu mbooleem sikk yi ci xar yi ba ci xar boo xamante ne gémmiñ gi dafa am euh, xet wu bon boobu it dee su ko tabaskee xar woo xamante ni it nopp bi dafa xar ba yegg ci bopp ba dee su ko tabaskee waaye bu fekkee ne xar boo xamante ne nopp bi dagg-dagg bu ndaw rekk yeggul soriwul lool boobu des na ko tabaskee naka noonu xar woo xamante ne génn gi dafa dagg ba jeex wala dagg ba gàtt lool boobu it doyul ngir ñu koy tabaskee xar woo xamante ni it béjjén bi dafa damm ba pare di nàcc boobu maanaam damm damb bu bees boobu de su ko tabaskee bu dee xar nag boo xamante ne am na damm damm béjjén bu yàgg boo xamante ne dem na ba wér di dinañ ko tabaskee fala yajuuzu in eh, fala yajuus boobu du dagan bu dul bi nga xamante ne nàccitul boobu dagan na léegi nag naka la ñuy euh, rendee li nga xamante ne mooy gàtt boobu kenn ku nekk na reyal boppam gàttam ñu ngi koy rey ci ki yoor yoor njolloor ku man nga jël sa loxo sa paaka nga rendil sa bopp waaye des na it Eh, digel keneen mu rendi la dara nekk ci waaye ku man moom li gën mooy nga rendil sa bopp kañ la ñuy rendi gàtt woowu bu imaam rendee eh, wa yowmu naxwi daxwatan ci yor yor bu Imam rende ba pare képp ku rendi jiitu sa imaam cik rendi da nga demaat daral jëndiwaat weneen xar kon nag jarul nga yàkkamti di gaaw ngir rendi sa xar Eh, nekk ci fees yeeg yooyu ak lakk yeeg yeneen ak yeneen na nga ni nga demee ci imaam nangu mu jiite la ci wàlluk julli nangu it mu jiite la ci wàlluk rendi te imaam booy julleeg moom mu lay jiite eh, boo ko jiitoo ci rokon wala ci sujoot su julli day yàqu naka noon it nañ ko roy ci wàlluk rey boobu nañu bàyyi ba imaam rendi moo tax dangay dégg sax ci suñu jàkk yi wala jullikaay yeeg jumaa yi ñii ne imaam rendi na bu ko defee ñu nit ñu mën a rendi euh, tabaski nag ñetti fan la ñetti fan yooyu lañuy ñuy tabaskee ku man ci bés bu jëkk ba moo gën na rey xaram walla béyam wala nagam wala mu looj géléemam ci sub maanaam ci njolloor ba jant bi di so boo amul sa gàtt ñaareelu fanuk tabaski ndax tabaski ñetti fan la naam bu njëkk bee gën bu la ñaareelu fan ba rëccee nga dàkk ko ci ñetteelu fan ba ba ci njolloor wa man qaala faqad qaala ahlul ilmi yustajabu aw yustahabu lahu an yasbira ila yawmi duha wax nañ ne bu la tabaski rembi eh, rombee ba ci tiisubaar te amoo gàtt li gën mooy nga muñ ci ëllëg sa même boo amee gàtt ci ngoon ay 5 heures aman nga ko denc ba ci ëllëg sa ci yoor yoor nga rendi gàtt kon daal tabaski ñetti fan la boo amul bu njëkk bi ñaareelu fan ba ba ci ñetteelu fan ba boo ko amul wàcc na la lii nag pour xale yi seen yóbbante la mooy bu ñu jaay dara ci li jóge ci gàtt gi ci tabaski deesu ci jaay dara ndax jaay ci araam na jaay der ba araam na jaay béjjén yi araam na jaay geen ba araam na lem na looy jaay ci gàttu tabaski dafa araam naka ngay rendee sa xaruk tabaski mu jublu penku Euh, kii rendi na wax bismillah wallahu akbar bu ci dollee rabbana taqabbal minna ba tey baax na képp ku fàtte wax bismillah ba ngay rendi sa xaruk tabaski wala sa xaruk ngénte sax euh, di tudd sa doom nga fàtte wax bismillah xar woowu dinañ ko jëfëndiko dana dagan ndax nga fàtte wax bismillah fekkee yaa tey bañ a wax bismillah nag bu dee xaaruk tabaski kenn du ko tabaskee bu dee tudd it da ngay yàq tudd ba ku fàtte jéggal nañ la waaye ku tey bañ wax bismillah loolu desu ko lekk nit ki nag ci xaruk tabaskee na ci lekk na ci saraxee na ci denc bu ko neexee waaye saraxe bi it amaana doonul lu war waaye lu rafet la naka lañuy ñuy rendee xaruf tabaski xam naa ne mooy doon tomb mu mu jëm ngir ñu yëkkati jotaay ba rendi xaruk tabaski mooy ñu dagg buli ba ak yi nga xamante ne mooy sidit yëkka a siq boo defee lu yées loolu xar woow kenn du koy jëfandikoo maanaam nga jël sa paaka ñaw ko ba mu ñaw tëral sa gàtt di ko rendi wax bismillah wallahu akbar nga dagg tuuti yëkkati sa loxo yàqu na dee ko jëfandikoo waaye it bul wax bismillahi rahmani rahim yemal ci bismillahi kese wallahu akbar lu tax gàtt gi doo ci yegg ci rahman ar rahim ndax loolu yërmande lay wundu ndax foog naa ne gàtt gi ngay tëral di ko rendi baatuk rahman ak baatuk rahim amu amu fa wàll kon nag ku rendi tuuti daggagoo boli ba ak sidit yëkk wër nga yëkkati sa loxo euh, bu ko defee nga tegaat kontine nee na Euh, loolu kenn du ko jëfandikoo dootuñu ko lekk kon nag nañu ñawal paaka yi noppal li ñuy rey rendika ba mu yegg ba ba ba jàll ci bëli ba ak ñaari sidit yi wër bëli ba bu fekkee ne it ki dafa xër lool di rendi xarub tabaskeem rendika rendika rendika ba baat ba deñ ak yaram ba def na lu ñaaw waaye dinañ jëfandikoo gàtt boobu rendi ba dagan na waaye ñaaw na ndax lislaam dafa bëgg ñuy rafetal it képp it koo xamante ne xam nga nit ñi la dañuy jékki-jékki rek ndeysaan dugg dugal ci seen diine yi bopp euh, seen mbir yu bees euh, jël sa xar tëral ka jaare ko ci ginnaaw ci ndong la rendi ka parce que yii yëpp dafa jara leeral ndax nit ñi léeg-léeg rek xër yóbbu leen ci yenn yi walla tëdd nelaw rek gént lu leen neex indi eh, diine ju bees wala doxalin bu bees loolu it dafa jëra leeral nañu roy rek yonent bi sallallahu alayhi mag ñu baax ñi nañu daan rendee seen gàtt kon ku rendee ci ginnaaw ci ndong la loolu deesu ko lekk medd kon foofu lañuy taxawandi ci ay tëmb yu ndaw rek yu ñu tënkoon tey indil leen ko ci tabaski gën naa yaatu noonu waaye euh, comme euh, dañu koy ubbee noonu rek incha allah bu ñu amaatee yeneen occasion danañ leen indil yeneen tomb ci diine euh, yeneen waxtaan yoo xamante ne aju na ci fa ñu toll ci wàllu société bi ñuy dund suñu wàllu diine ak suñu wàllu àdduna ñu ngi gërëm di sant suñu directeur sama turandoo Ibrahima Lay Gazo euh, ak techniciens yu baax yi yëpp ñu ngi leen di ziar baax di leen ñaanal xéewal ak euh, sutura bërëb bi it macha allah yanj na ñu ngi ñaan rek mu gën a yanj incha allah mu gën a yaatu yàlla ñu ko yàlla defal seen mbokk la woon seen xarit Ibrahima Lay fii ci groupe Média 7 إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu dikkaat ak yéen ci seen émission spéciale tabaski tabaski ak oustaz Ibrahima Sow bi leen dara waxtaanal mbirum tabaski ana lan moo waral tabaski ana ki tabaski war si moom ak ki mu warul ci moom oustaz Ibrahima Sow oustaz journaliste chroniqueur moo leen fas yéene waxtaanal spéciale tabaski fii ci 7media TV mbokk yi bu leen ko tardé mukk ajuma lay doon bu ñetti waxtu jotee fii ci 7media TV gannaaw jili juma ak oustaz Ibrahima Sow bu leen ko xati mukk wasalaamualeykum wa wa rahmatullahi taala wa barakatuhu